lu wax ja yàgg-yàgg bu ko tontu fekk nuyuwu la loolu tax sax ñuy nuyoo waaye doy loolu nañ nuyoo kon boog asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaar te di ko jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi moom alxaaji imam Moussa Gueye bii toog fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin lii mu nettali nii léegi ci lii jafee nekk muy taalibe li jafee am ba gën a jafe muy am sëriñ ba gën a jafe muy sëriñ bu mat sëriñ ba gën a jafe muy amee ñàkk mën a amee dana dana jur ñàkk te ñàkk ak yàq ak dof rek lay dal noonu la woon de waaw waaw way juróom moo ko doon wax dama koy nettali Cerno Cheikh bu Cerno Bachir Mountaga Daha Cheikh Omar samedi. su ko koy nettali boobu quatre heures du matin jot na. ci biir néegam man ak moom ak Cheikh Omar an directeur u kudd ak Abdou Aziz Diagne ak Chérif Mamine astaxfirullah ak Chérif ba jógee woon ndogalum ak kilifa yu bari ñu ko woon ci salle bi ñoom ñëpp dañ ne di ma xool ma lii nag way juri imam Moussa Gueye moo ko daan te xaw ma woon ne di nga ko nettaliwaat tey samedi laa ko nettali tey nga nettaliwaat ko ah waaw kay moom mii fa la ne woon moom lay mii fa la nekkoon ñoo àndoon kon nag nga ñëw nettaliwaat ko tey te booba dama doon sensibiliser nit ñi ci bañ rek gaawtu gaawtu man taalibe laa taalibe laa orné sa course ba mu rafet nag dóor sa mbaxanam ba ne wala sa dabaax ku ne koo seen taalibe si nga ne arkan tabarkan tabarkan te yow wóor dara wóorul la sax ndax taalibe waxuma la taalibe Cheikh man leen taalibe yombut di góor gi El Hadj Ousmane daan wax ci laa nettali nag li nga wax ci am na Cheikh Oumar nii la toogee ci suuf di ma xool mu ne ma góor gi ma ne ko góor googu de imam Moussa li baax baax tolluwu ko fii dem na Cheikhu ne ma déet ma ne ko ma ne ko mag góor googu nag moo jàngal alaaji bu saaxoo li ñuy gàmmoo waaw daanaka ñoom laa doon waxtaane ne ko góor gi ñëwaat góor gi mbay ràbb moo jàngal alaaji bu saaxoo nii muy gàmmoo ma ko nii nekku nekkuloon façon bi alaaji bu saaxoo ma ko ñoom ci ëttu xam-xam lañ yaroon ci yow waxtaan ak samedi samedi teg wallaay yàlla xam na ko 4 heures du matin fa la ñuy fekk. kër na Bachir. waaw ah, moom mii mu ngi toog ñoo am mu nekkoon sama ndeyjoor. Thierno Cheikh Omar toog nii ci suuf. ñoom Cheikh Omar ànd dóoru guddi ñoom ñëpp ñu ngi toog. daanaka loolu lañ wax rek suuti lañ ci teg ñaan waaw ah, ma leen ndax eh, jamono moo yegg foo xam ne joxatuñ benn sëriñ gëddal. joxatuñ benn kilifa gëddëm du kilifa diine du kilifa aada te kilifa nag mënul ñàkk kilifa mënul ñàkk tabarakallahu kon alxaaji imam Moussa ñun ñëpp ñoo maase di la sant di la gërëm dafa di nit bu la nag wi doy mu ngi nii mooy sa teraanga buñ ko rendee da ciy baanit du la doy nag waa ngi nii mooy sa teraanga day ne sa teraanga su la doy buñ ko rendee def ci paane du la doy mukk euh, moom nag suñu diggante dafa yàgg ni ko waxee way juróom fii laa ko daan dem seeti buñ góor guy yiw boo ñëwee fekk ko mu toog rek da xam ne kii yàlla ko baaxee waaw ci pecc rafet man bi ma ci mu gën a frappé nag mooy cawalin ba mu daan sol grand bu cawalin bu am tere yi noir yeeg bu weex bi waaw co boo àddoo rek nga xam ne kii nitu yàlla moom mii nag yàlla boole ñu booba jamono yooyu fii laa daan jóge bu ma toogee bi ci liggéey rek dox ndànk dem siis sama taalibe boobu la defaral ñu meew <laughs> kumba ci am Adja Kumba nee naa ko meew mën na ko meewu sérif la ko tuddee woon waaye léegi mënatu ko ma ne ko xaw ma lu tax mënatoo ko waaye meew ma na mënatu ko léegi yàlla xam na ko waaw léegi bi may recevoir waa kër Thierno Bachirou Mountakha Cheikh Oumar yi ci la Serigne Babacar di dugg si ma ne leen kii sëtu imam Moussa Allah tabaraka mbaaxu ah yàlla dem àddina di dox di dox ba sama doom di daagu ëttam doomam jur ko muy aasiyatu loolu mbiru yàlla la waaye sama mbir du mbiram li mu wax nii loolu yëpp jamono nag booy wax dañuy foog ne da nga bëgg ci nit ki dara wala da koy sànni fleur wala nangam ak nangam am na koo xam ne koo xam ne yoroo dépense am jàngaloo joxoo ko wér yaakaarul sa dara bu toogee di wax war nga xam ne li muy wax yàlla rekk tax mu di ko wala déet waaye réew mi moo yegg ci yàqu mais kuy wax ci lislaam mën nañu naan day dóor day dóor de mu ngi dóor de am na ku am na ku jomba dóor am na koo xam ne dóor dóor du mbiram waaw xamul sax luy dóor moom mii ci la bokk waaw moom mii tey bu fekkoon ne àddina rek ko ñor amoon na ko bu yàgg wax naa leen fii bu fi newul jaam a ngi jaamu la tax mu wéy ko wax naa leen ko fii te booba bu fekkoon àddina la bëgg amoon na ko te loolaa tax mu taalif jaam a ngi jaam ma ne leen gisuma ku ko gën a sàmm ci réew mi loola ko gaaru bu gaaroon Sidi Maxtaar Kunta ma mu ne yulub ci teen bi maa la ko wax bu gaaroon Sidi Kunta ma mu ne yulub ci teen bi waaye mu jël loola yépp fi tax ca xaj des ak yàlla ba woy woy wu rëy yi nga xam ne foo ko woy ci àddina bi da ngay yëg ne ki ko taalif jubóo nag boromam ah, looloo am looloo am waaw ah, boo ko digloo woy wi ba mu daanu di nga yëg ne ki taalif woy wi jubóo nag boromam te yàlla bëgg na ko yuhibbuhum wa yuhibbunahum azillatin alal muminina aizatin alal kafirina yujahiduuna fi sabilillahi wala yaxaafuuna lawmata laa'im loolaa la ci dugal waaw wala yaxafuuna lawmata laa'im ah mu jël boppam wéer ci boromam eh, ka taxoon mu woy woy wa kenn xamatu ko kenn déggu wala déet yow mi ko woyoon yàlla ba tey yàlla ngi lay wan nit ñi <laughs> waaw eh, ka taxoon mu woy woy wa kenn déggatu ko kenn xamu ko moom bi desoon ak boromam te yàlla won na ko àddina bi ñëpp xam nañu xanaa ku gëmm te ku gëmm it ku jox jox lu yi ñu wax ko la ne la Imam Moussa yi waxtaan <laughs> wala déet moom bëgg ah jeex na seen bu doon seen maxa kañ jeex na seen maxa taxaw fii wax ci moom te kooku yàlla nattoowu ko ay bët yuy gis waaye xel muy gis am na ko ba gis ko taxaw fii wax ko door a kon nag eh, bu ñu sañoon àjjuma bu jot nañ koy gis fii waaye xam nañ jot dem ni ñu ko soxlaa it la ko ñëpp soxla alaaji rawaan moom yaakaar na ne moom dong moom imam Moussa alaaji rawaan mbay yaakaar na ne moom dong moom moom musa Moussa la imam Moussa am ci moom it kenn amu ko ci moom ndax rawaan nag maa la yëgal ne ku difficile la waaye difficile la mi yëpp dëggoo tax man kilifa bu mag ñëw na ci man ñoo man daal dégg na alaaji rawaan juboo nga ak moom ma ne ko imam Moussa de la fa ak soxna Faat si yaa koy fàttale ba ma reeloo ko rey métti ya gars yi naan reewu rawaan ma ne leen man reeloo naa rawaan ma ndax dafa am lam bu nekk ca Màkka la mu or la bu bu bu cher ñu tuddee ko reewu rawaan jigéen ñi dem màkk xanaa xam nañ ko reewu rawaan lañ tuddee re lam mooy rawaan kenn du gis mu rek ñum mu rek la xam nga loolu la reewu gis ko mu ree problème la moo tax <laughs> lam ñu tuddee ko reewu rawaan ndax jënd ko problème la dafa cher waaw li may wax nii ñun ñëpp xam nañ ko keroog bi ñu yendu jee foofa man mii reeloo naa alaaji rawaan te bëgg laa ko reeloo muy Cheikhul Hadj Abdoulaye waaw ci moom laa ko reeloo keroog maag imam Moussa bii ñoo ànd ak soxna Fatou si la baax waaw ci salle bi ñiy defar añ bi ma ne ko ah rawaan nga baal ma rek ma nettali la góor ga waxoon mhm. su ma juumut ma ne ko 89 la woon bu tëj te buur du 89 wala 88 benn la ci dañ ko jëli jag saaw mu ne ah tey de moom gëwuma ne ma mën a dem ci tëj ci burdu ba xanaa ngeen toog ba ca kanam nga xam toog julli tàkkusaan julli timis yaram wi ni ko bàyyi mu ne ah mënuma ko sax de waaye man abdu de rus naa ña yaakaar tey njabootu alaaju Malik toog ca zawiya ba di ma xaar ma tas seen yaakaar lu may wax alaaju lu ma mën a di mën a di ñooñu war nañoo tax ma dem mu ne ak julli ci yàlla yi jógee fële ne abdu leen ñuy déglu si te abdu liggéeyalul yàlla lu tax loolu ñaar yi rek war naa tax ma dem dal di ne kon ngeen may ma ma dem waaye du ma yàq dal ñëw bi mu yegsee ci zaw yu bi ne sikkar leen sikkar sugee ñu sikkar sikkar sugee sikkar bi yàgg ba mu yàgg mu door a joxe ndigal ne bismillah imaam na jiite ñu julli gee mu wax mu ne Abdou Aziz jëlal Abdou Aziz Mbaye jëlal rajo bi nga tàmbali burdu bi yaa sayyidi maa ko ca yokk sax yaakaar naa noonu la ko waxee waaye mokkaluma ko wax ca wax ju sori ne ko tàmbalil rek boo demee ba ci digg bi nag nga may ma rek ma yeewee ko te bàyyi fi ñoom Serigne mbay ba Abdou Aziz yëkkatee rek yaa sey góor gi ne cas ànd ak moom mook Abdou mbay mook Abdou Mbaye mook Abdou Aziz mook Abdou Aziz mook Abdou Aziz ba burdu bi jeex mu teg ca mu daal waxtaan une heure trente minutes jàlloo micro bi ba mu yàgg mu ne Diop Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm ndeysaan Diop Ndiaye jox ma rajo bi jox ma jox ma jox ma mu ne bu kenn dem naan Abdou ma ma fekkoon jeg saaw mu mel ni kuy bëgg a dee ndekk dara dalu ko man la ba bañoon a recevoir rek ndax mu nga ne la ci jàkka ja di jolle woyi mu ne dara dara na ma ba dee mu ne la daloon ak góor moo ma dal mu ne góor ga dafa bàyyi mbappat dëkk ca jàkka ja mu ne mokkal wasifa bi lool miin wasifa bi lool miin jàkka ji lool mu ne yàlla natt ko benn tàkkusaan mu génn jégg galan yi di indi ngelaw li di indi ay galan nee na mu ne mu mu dékk nopp bi ba mu yàgg ne ah, ñooñu de seytaane mën na leen ñooñu seytaane mën na leen ba ma cay toll boo demee nii laa meloon rek daal di ah xaaral ma doxantu rek topp galam yi <laughs> nga xam ni ñuy doxale mu ne ba mu yàgg mu ne am na ci sax kuy tëggee càmmoñ ndax noonu mu ruumee boobu nag la rawandi ree boobu la alaaji rawandi ree mu ne ndax noonu tëgg mi ruumee daal am na ci kuy tëggee càmmoñ nee na muy waaxu di waaxu di waaxu di dem nee na ba jub géewu ba géew ba seen waa jiy tëggee càmmoñ ne naka jekk de kële la <laughs> daan di géew bi di leen xool ne waaye ñii kat ndekete seytaan yi mën na def man bi ma ciy toll kat ndekete nii laa meloon ah waay waay waay alhamdulilah bi ma ci génne mu ne fa mu nekk di kebetu rek am ku ko seen nekkal li bàyyi diw la ñaa mu ne laal leen galama maa ko xam nangam la mu ne bañ dóoree galan yi rek góor gi ne rek sàllam ñi ko dugg ci biir géej mu ne def dafa dafa def ba mu ne moo tooñ mu ne waaye man Abdou yi maa tooñ sama bopp koo xam ne wuyal nga Seydi Aboubacar ba mu dem ak El Hadj mu ne ndax man nii ak Seydi Jamil ma keroog la wax ne ma tuddee Seydi Jamil Seydi Jamil waaw mu ne ñu wuyal Seydi Aboubacar ba mu dem mu wuyal El Hadj ba mu dem ma toog fi ba léegi di woy xam ngeen ne mënuma mu ñuy woy daal di ne lii rek la waaye du dara waaw lii rek la waaye du dara mu ne waaye alhamdulilah njabootu Alaaji Maalik yi ak jullit yàlla yi bëgg jaral na Abdou mu ñëw toog fii ba bët set waaw ndax ibqaalul suruur fi qalbil mu'min dugal mbégte ci xolu jullit bu gëm yàlla mu ne man Abdou jaral na ma dox suba ba jant bi so kon nag loolu nga defal ñëpp tey alxaji Moussa ñëpp bëgg rek bi may recevoir waa Thierno Bachir yi am soxna yu ñëw ma ne leen imam Moussa nga ca tant ba ñoom daanaka déggatuñ sax la may wax fii dañ jubal si daanaka dañ maa xaw a rek ñama waaw léegi daal kon baax na dëggat tànk yu dëgër jubal si fii te dama leen rek imam Moussa nga ca tant ba falaa war a def kon nag yàlla def Sénégal yëpp soppal te boo waxee ñu ne imam Moussa dafa yaru te loolu ñëpp ko mën a seet waaw mag mu yaru la bu bu jeunesse bi xooloon ci moom ak oustaz sama eh, classe oustaz aussi di maxtaar yile di waaraate bu ñu xooloon ci moom rek parce que waaraate dafa war a feeñ ci say cër yow li ngay waaraate dafa war a feeñ ci say cër soo bëggee mu dugg ci xolu nit waaw te moom boo toogee di wax rek nga yëg ni yàllaa ko yaral bopp ba bii maa ngi koy seetaan révision bi ci jeegal këram waaw xoolal yéene boobu mu def jàllale suñu gàmm gi jàllale ko commenté ko waaw commenté ko commenté ko yëpp maa ngi koy seetaan waaw maa ngi koy seetaan ba trois heures daanaka trois heures de matin maa ngi koy seetaan maa ay mbokk yu jógee woon ren waaw président daayira bu ren ca France ñoo ak yaayam ak sëram ak ñi màndaloon ñëpp wallaay ñoo toog di ko seetaan presque ba trois heures du matin te ñoom booba sax ñu ngay ñibbi Kër Massar wax dëgg yàlla ci lañ doon bi mu jeexee lañ door a ñibbi Kër Massar waaw ñëpp ni man dama sopp Imam Moussa te xamuñu la waaw ñoom ña fa toogoon ñu ne man Imam Moussa ni ma ko soppee te te mosuñu laa nuyu waaw jiw dama koo sopp rek ñaan la képp ndax fokk mu ñaanal la ci xol wala mu ñaanal la ci làmmiñ te faw yàlla nangu ko parce que ñaanu koo xam ne yëgoo ne mu ngi lay ñaanal yàlla da koy nangu kon géy ñu ngi lay sant bu baax mu Moussa ñun fierté nga ci ñun fierté nga ci géejawaay fierté nga ci Sénégal ci décembre nga ñëw toog ñun fii xadara ñun jiite ñu ñaanal ñu yàlla loolu yal na dem a dem a beneen bañ ne tey la imam Moussa di fedd téeméeri at te foo geesu gis ñi waaw te foo geesu rek gis ñi ñun ñëpp ñu ngi toog te fekk yaram waa ngi wér cër yaa ngi wér xel maa ngi wér wërsëg yu bari na nga toog ba sa sët yile naan la maam kaay dem faas na maam kaay dem faas waaw maam yow xanaa bëggoo dem umra nga ne ah umra kat léegi tànk yi neexatuñu waaye dañ lay fay ñu lay ñu lay defal li nga bëgg yëpp yal na ko yàlla def. te fekk say sët la koy defal. say yoo xam ne ci doom góor la jógee ak doom yi jigéen. yal na la ko yàlla defal defal ñu ko ñun ñëpp. ndax fierté nga ci ñëpp nag. fierté nga ci ñëpp. fierté nga ci ñëpp ci yar ci teggin eh, maa ngi seetlu sax soxna Aysiyatu bi muy bi ngay waaj a ñëw la xëcc kol ga teg ci bopp bi. Hmm. dëgg la de. mais ñi ma àndal ñu mën a ñi ma toogal ñu mën a seytaane ma ne leen seytaane wut kat. ñu wut waaw moom bi fi Imam Moussa ñëwagul ngi fi woon. ma yàlla Imam Moussa yàlla ji ñuy gis moo tax. <laughs> ma ne waaye Imam Moussa moo fi représenté yàlla ji ñuy gis te gars yi yàlla ji ñuy gis lañ gën a lañ gën a fullaal ma ne ko nag. gis nga ruus nitu yàlla mooy ruus yàlla ku amul cër ci yàlla doo ruus nitam déedéet ku amul cër ci yàlla doo ruus nitam koo gis mu ruus nitu yàlla rek am na cër ci yàlla cër baa yegsee ko waaye ku amul cër ci yàlla nitu yàlla nitu mbedd yi ngay yemal maa la ko ku amul benn cër ci yàlla nitu yàlla nitu mbedd yi ngay yemal waaye koo gis bu gisee ab ustaas wala bu gisee ak sëriñ wala ku mën a gis bu ko fekkoon ci yenn comportement yi mu jàdd mbedd yëpp yàllaa ngi ci moom dafa yegg seegut waaye yëpp yàlla ngi ci moom moo tax toujours ma di ko fàttali nit ñi la Serigne Cheikh daan wax nañ ci bàyyi xel noonu amul soppe bu yegg seegul moo fi nekk waaw amul soppe bu yegg seegul rek moo fi nekk te suñ gàmmu ren bi dina neex de di nga gis loo mosul maa la ko wax waaw te Thierno Bachirou confirmé na ma ko waaw maa la wax loolu toogal ma maa la ko wax wallahi di nga gis loo mosul gis da xool dina seet di buy ndax yow loolu rek nga moom ci lu baax rek lay dox man maa ngi di kontaan ñooy dox ci yële waaye moom bu sañoon Sénégal yëpp àndandoor nekk benn su sañoon gis nga nii mu ko ñaanee léegi su sañoon Sénégal yëpp ànd nekk benn te loolu moo ñuy jëriñ ñii toog sama mbokk Baye Fall yi at bu jot ñu ñëw toog di seeti Cheikh Ibra Fall buñ fi doon dégg luy blessé seen pas-pas buñ fi ñëw wala déet suñ fi doon dégg luy blessé seen pas-pas bu ñuy romb fële sax dañuy yuuxu sëñ Touba pour wan la nañ yow Cheikh di jàng yaakaar waaye sëñ Touba lañ yaakaar waaye bi ñuy yot di dugg si defuñ benn bruit dañ ñëw ba toog kon Fall mi ngi lay ziyaare bu baax di la ndokkeel ñoom sama mbokk lañ ndax man sama sœur yi ma bokkal ndey Cheikh Ibrahima Fall mooy seen maam man sama yaay fo na ma yàlla baal nit ku foye foye yi kenn mosu ko denc waaw. léegi tax nga doom bu tudd sëñ Touba. man sama taaw sëñ mooy sama taaw si bu doon dund tey jii am ren la war a am 31 ans. ndax ki topp ki topp ci moom ren la am 26 ans. te kooku toppul ci moom muy Maymoun. te Maymoun a ngi ci 26 ans rek. ca digg Tiwaawan. ah waaw Sall yàlla na ko yàlla yërëm sëñ Gorgui Lamine Diouf imam moom la Serigne Mansour yabaloon ci la gaa yi nii chérif bi xaw ma lu mu defal yàlla ba Abdou Sall ñëw ci dundam Abdou Sall mosul dem ngénte Abdou Sall moom mii xam na ko révolutionnaire la moom digit yaawoon la daan toog di wax lu ko neex wala góor gi Maxtaar Sall ko ji wallaay wallaay góor gi Maxtaar Sall Seydi Hadj Malick la fekk si Tiwaawan soo ko defal góor gi ma soogi sàll moo ko jur ba Maodo di ñëw mu ne ko yóbbaale ko jox naa la ko moo jur ab Sall wallaay wallaay mën a jàng te mën a jàng bari xam-xam looloo taxoon sax daanaka gëmut lu bari ndax xam-xam bu bari daanaka rek daf lay yóbbu ci mustawa boo xam ne ah, boo amul kilifa pire doo neex a réglé passé na foofu sëñ sëñ Mansour mos lay ñaan. bu daan ñaan nag day day moom day doxantu lu fay. waaw am ko ko boole sëñ Mansour ne ko moom Abdoulaye Sall booy booy ñaan du tàllal mukk. mu ne ko ah sëñ Mansour may wuli day ñaan. dëgg dëgg dëgg génn cinquante mille seet. wallaay ndeysaan Abdou Sall xam ne ni ñi ñooy jaxase di seen li imam Moussa doon wax gis nga par courant bi ku ku doy waar la woon waaye ku baax la woon nga fi lañ daan nekk riitière ca pantareen ba lu mu am séddale ko professeur la woon doon jàngale lu am séddale ko te la daan yendu fii ci riitière mu ne bu sëñ Mansour daan du tàllal day doxantu di dem di ñëw am ñu ko boolee seen Mansour ni ko saal Sall daal waxtu way ñaan du tàllal day doxantu di dem di ñëw mu ne ah sëñ Mansour na yow di day ñaan bu ma ta balaa may tàllal kañ bu bu doon nayee xam may ñi ko tàllal bu ko defee sëñ day ree ba tëdd ci suuf waaw wax dëgg yàlla moom moo daan yóbbu sëñ Mansour xombol ak xotom nekk chauffeuru sëñ Mansour. ak misaal bu woyof bu baax la mu ne léeg-léeg buñ masaan yegg ma ne ko sëriñ bi chauffeur dañ koy fay kalandoo la fay ma. <laughs> nee na bu defee dëgg ma bu defee jaaxal ma def dëgg mu ne ma ah am na ma mu ne ma fay ma ma dem jaawoo jàllu ko da ngay ñibbi si ma ma jël si waat la jox ko mu ne ko ah <laughs> ndeysaan ñooñu ñëpp man moom Sidi Makhtar Konte eh, sëñ Souleymane Seck ak ba xalifa si Baye Mbacke bi ndeysaan ñoo daan bokk di yànd foofu ah, ci këram muy sotti xam-xam rek ah, Abdou Sall yal na ko yàlla dolli leer moom dem ah, muy génne àddina eh, fan yooyu dama fa jaar rek nuyu ko ndeysaan mu ngi feebar bi mu ma ah yow dañuy wax ne da ngaa bëgg alxuraan da nga bëgg xasari maa la gën a bëgg alxuraan maa la gën a bëgg xasari mu ne ma gis nga fii ma tëdd nii li may sotti ci alxuraan ci sama dënn ma ne ko loolu mënul nekk ma ne ko yow fi nga tëdd nga wax ma ne ko man bu may xool ak bu may nelaw ak bu may dox ak yëpp alxuraan lay mu ne ma kon yaa ma ko gën a bëgg ndeysaan ku baax bëgg alxuraan yi waaw gëmul lu dul alxuraan ab dosaan la la hawla wala quwwata kon imam ñu ngi lay sant tey daal dañ doy loolu li imam waxtaan moo tax balaa may départ ndax Dakar laa nekkoon Sacré-Cœur la téléphone Oustaz bi bii sax moom ah, moo ma ne ko imam Moussa dina ñëw xam naa embouteillage bi ci yoon bi ndax xam ah, xam Ndakaaru moom daanaka rek ah, jarul am na heure boo xam ne mënoo fexe ba doo dugg ci embouteillage heureusement Modou Ndaw bi ma àndal mm-hmm. maag moom a yem roq roq jinne yëpp xam nañ waaye fanweeri ji nañ fa terewul am na koo xam ne boo yegsee da topp rang bi moom mënoo ci dara muy kàmbaleen ji biñu yegsee ba kàmbaleen nag yëf yéene tëj ma ne ko fii moom amul dugg fenn defal nii rek oustaz Mbayka moo daan wax ñi topp rang bi ñoo yàkkamti waaw bu gisee kuy dévié mu ne oh, oh, bu ko topp kooku yàkkamti ñi topp rang bi ñoo yàkkamti mu ne ndax kii dévié mën na ne kasax ci kaw dara yoonam yem li yàkkam ci boobu noonu yàkkam ci moom yëpp ki toppoon rang bi nag dana dem ba yàgg ah, waaw ah, loolu tax mu ne ki topp rang bi moo yàkkam waaye ki toppul rang bi yàkkam ci moom oustaz may ka xakim la woon yàlla ko mayam hmm. bés ñu toog fii di waxtaan mu ne ma chérif ma ne ko am ah, mu ne ma alquran fatiha la baq naasi rek yax hmm. ma ne ko lu tax mu ne ma fatiha yàlla daf la naan fexeel da jubóo ma ndax man rek a fi fexeel ba jubóog ma mu ma naasi lu fa nekk ma ne ko mi ne jinnati wa naas mu yàlla joxoñ la ne la boo jubóog man te nit ñi ma fi indi ak jinne yu ñoom it sa dund gi du neex <laughs> nga def ba jubóog man def ko ba jubóog nit ñi ak sa dund mën soo ñëwee ma la mu ne lii rek mooy alxuraan mu ne ñi ci des ñi ci diggante bi yëpp commentaire la rek oh mu ne commentaire la pour noo jubóog yàlla jubóog nit ñi jinne yi jeex na xoolal mënoo ko ci génne. déedéet waaw mu ne ma Fatiha dinañ génne di wala loolu lay am xoolal. dana yi ci des yëpp commentaire la. wax ni moom may gabatee. mu ne salarié yi. nee naa le set lay bañ. ndax nee na le set nga set wecc gërëm nga ñu ko def le dix nga dix gam na kii bon le le vingt nga weeru. mu ñu nag boo reetee ba ñu maa ngi def départ volontaire nag na xaalis bëri nee na boo tul départ volontaire lay doon. bu teg ci nii nag nee benn syndicat bu lay fajale di sa di sa xëy na xar de ndax syndicat yëpp léegi syndicat rek leen ko bàyyi. wallaay ndeysaan nit ku doy waar la waaw ndeysaan boo ñu tëddee feebar ma seeti ko. mu ne ma Chérif ma ne ko am ah, mu ne ma bër bu set ma dem. mu ne ma mënoon naa dund waaye ma doy na doy na sëkk. doy defatuma fi dara mu ne parce que xam naa ne fa ma jëm neex. wallaay nii dama ko waxee. mu xam naa ne fa ma jëm neex. moo tax soxlaatuma fi dara. mu ne ëpp na sax li ma li ma li ma dund sax ëpp nit ku doy waar la ma ci imam Mbaye. ndeysaan mu ngi may nettali bés. mu ne ma ci sama mbaadoolo gi rek xam nga nit ku yàlla biir ngénte lu mu dem ak xew lu dem ni ëmbal ma ci bañ bi gaaw ëmbal ma ci bañ bi gaaw gaaw gaaw boo ëmbee ba mu jël nag uuf door a commencé waxtaan mënoo fexe ba mbooloo mu dem bu tisbaar jotee wala tàkkusaan jàpp balaay buy jàpp lay jël kaala ga teg ci kanam pour fas yéene jiite nee <laughs> na kenn du ko jiite ndeysaan dañuy waxtaan moo xaj Malick Cissé mu ne Cissé ne ko mbayka mbayka yow su wilaaya gi xanaa fàdd rek nga mën yow mosuma dégg koo ne yaa ko defar maa ko fàdd rek mu ne waaw li ma ci ama bariwul te kii ñaanee ko li ma ci am ma bariwul te ñu ñaanee ma ko moo tax fàtte rek laa ci mën day daal bis nag bu may bu may mu ne ma ci moom baadoolo gi rek mu ne ma dem si ñëpp du fekk ko ci Ndakaaru mu ne boobu nag maa ngi bank mu ne ma ñaari yoon la ma dal mu ne benn bi ci sëñ Fallou la benn bi si ñëpp mu ne dama dem seeti sëñ Fallou ndax mbokk gi kayen dañu bokk ak sëñ Fallou mm-hmm. bokk ak sëñ Touba mm-hmm. mu ne ma dem seete ko def sama taalif nag wax niñ bokkee mu ne sëñ Fallou kon am yëkkati àllal ju bari jox ma ci jamono boobu nee na ma dem rek matul ñeenti ñaari semaine rek ma ñëwaat waat sama taalif beneen loolu dafa mënoon taalif mu ne sëñ Fallou jël yëkkatiwaat àllal ju takk jox ma nee ma dem mu am ma ñëwaat <laughs> mu ne sëñ Fall séen ma rek ma yokkat ku ñàkk mil xaw <laughs> mu ne sëñ Fall séen ma rek dama waa ji de yokkat ku yokkat ku ñàkk mil xaw nga waaye <laughs> muy ormal nga bëgg wax ku ñàkk xorom nga kon nit ñi ko mil xaw mooy xorom ci yàlla na ma bëggul loo xam ku ñàkk xolam nga kon nit ñi xam ko mu ne ma waa ji de yow kat ku ñàkk mi la xam nga waay xanaa du yaa fi ñëw fan mu ne mu ne mu ne doyul bi mu ne man sama mbaa doole ma demaat ci sa ñam du àll am na ne ko ah tey daal dama fi jaaroon rek nga xam nga daara ji rek ñu mel nee na sa ñam du yëkkati 200000 jox ma nee na ma toog. 15 jours delluwaat mu ne ma yëkkati 100000 jox ma ñu ne ma toog une semaine delluwaat mu ne benn day baadoola di waroon naa xam ne dana ma bañ a jox mu ne waaye sama baadoola rek kii mu ne mu joxaat ma 50000 nee na ma am 5 jours dem nee na mu jox ma 25000. nee na ma am ñetti fan ko rek mu ni ma mbay te damay yelwaan nge mu ne ma jub ko mu ne ma mbay ka damay yelwaan ngay yelwaan mu ne ma du ma yelwaan jox la ndeysaan moo lay wan ne nit yàlla pire la fan yële damay seetaan 1998 conférence boobu gàmmu gii tey conférence la woon fii ci buntu cité bi may may déglu waxtaan wam fa def moom imam la may jóg 98 ren la 20 ans boobu maa ngi seetaan ak kaset bi keroog Omar mii moo ko defar jox ma ko ci buntu cité bi boobu Amina mii mu ngi noonu lu tuuti Omar kooku nan nga jiwutoon mooy. incha allah ah, Omar kooku ko nga jox. incha allah incha allah. wallaay ndeysaan lu ñu raar nga ciy gis. ci ci kaset bi. wallaay ndeysaan boobu imaam Lamine yow boo gisee yow mii sax yaa ngi ca nekk jeune boo xamante ni maanaam ndeysaan mu ne xoolal ñii ñëpp baa leen léegi waaye li yàlla di def bi ngay sama doom benn chef mu ne mais mais papa toi tu ça tu ne changes pas tu es toujours comme ça tu ne moom nga lool mu ne ma yow papa changé woo ba tey ma ne ko damay maintenir ni ma yu baax la di ko seetaan waaw xoolal quatre vingt ñaar fukki at waaw ñaari at la ko jiitoon te ñaari at yooyu moom lañ defee woon jëppal maa ngi koy fàttaliku boobu Diom Ndiaye bii dem moo ko présidé woon ndeysaan ak Chérif Mahmoud magu Chérif Mami ndeysaan ak Alaaji Touré gendarme la woon eh, médecin léegi mu nga Thiès